asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 11 novembre 2020 ñëw ak njégli kaay suñu lamb la ñuy xëy tey doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi di sunu lamb moom que ma xëy tey séqal waxtaan muy président Rock Énergie di Xaadim Gajaga Xaadim moom moo xëy di wax ginnaaw nag ba ñu gisee ci xëtu ñëkku yëglikaay bi mu fesal mbërëm ma nga xam ne moom moo di Modou Lo di le roi des arènes Xaadim Gajaga nag ne na seen diggante ak Ama Baldé daal ne na ñoom fi mu nekk ni moom pare nañu ngir nag jàmmaarloo ak moom ne na daal Modou Lo moom pare def na ko fi mu ni te a liggéey boo xam ne daal fi mu nekk nii gaynde gu xiif sax mën koo jaawaleel ne na Modou itam dellu ginnaaw dara fi mu nekk ni xalaatu koo def vraiment daal fi mu nii moom fa mu baat ñu kupp ko moom Khadim Gadiaga la loolu la xëy tey wax maanaam daal pare la def ñeneen ñoo xam ne nii moom daa war a doxal mën naa nekk loo xam ne lu bañ jafe lay doon donte yen bi diis na loolu mooy gis-gisu ka nga xam ne nii moom moo di Maysa Ndiaye ñeneen ñoo xam ne ni bokk nañ ca bureau xëy nañ di àddu ka ca njëkk mooy Issa Ndiaye Ndiaye Issa nag moom nee na li am ba des daal maanaam teg ay yoon ak ay xalaat ak ay action yoo xam ne daal jàpp na ne suñ ko defee mbir ya moom dana mën a dem fañ ko soxlaa keneen koo xam ne mu ngi ca biir di Abdou Aziz Guèye Abdou Aziz tam la mu wax daal nee na mbir moomu mën a doon ci àddina war naa mën a dox waaye ca kaw la koy doxal nag na maanaam daal xalaat ya doon benn xol ya doon benn ñu waxtaan ba déggoo nee na su mbir yooyu daal jàpp na ne daal coalition moom fu mu am mbir ya war naa mën a dox am na keneen koo xam ne ni moom mu nga xëy di wax di leen dànkaafu wala boog ñu nga leen di wax daal la ñu jàpp ne suñ ko defee mbir ya dana dox muy journaliste ya am na ca koo xam ne yëg likaay bi fësal na ko ci xitam muy njëkk muy Lamine Seck bu Ligue TV la mu xam ne dak daal ne na li ambades daal ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite làmb ji daal la ñu war a a def mooy maanaam jox presse bi seen gëdd waruñu caa yem waaye ubbil tamit waa làmb ji seen ay buntu di waxtaan ak ñëpp maanaam gis leen bañ a doon luy jafe ne na lii daal su amee waxtaan di am ne su keroogee moom li xam ne daal def na ko ci moom ndax nag jot naa jiite li ñuy wax CDG la nga ne mooy ci atum 1994 ba 2004 mu jóge ca ñëw ci la nga xam ne mooy CRC atum ba mel ni nag kon daal fukki at ak juróom-benn def na ko ci CRC ba nekk fa nga xam ne moom mooy ca Kaolack yëglikaay bi nag xëy na samp laaj ne kan moo koy remplacer fa nga xam ne nii moom mooy ca CRC ba loolu mooy ay waxi li nga xam ne mala boog laaj boo xam ne yëglikaay bi xëy na tey samp ko ci mbirum ka nga xam ne nii moom moo di Bira point net moom li am ba des daal jàppale yëglikaay bi moo ñu xamale ne daal ka nga xam ne moo di Tafa Gueye Bécaye Mbaye ak Yékini daa mel daa am lu ñu naroon maanaam ab front boo xam ne daal ngir fas nag jàkkaarloog ñi fi ne xeex ñoom ngir ñàkk ànd ca tabb ga nga xam ne tag nañ ko biraa seen waaye daa mel ni nag Tafa Gueye ma nga xam ne moom tuddoon nañ ko ca loola moom woo ca woote na ca Leewtoo point daal weddi loola ba mu set ne nekkut ca nga xam ne nii moom moo di Leewtoo keneen koo xam ne nii wala ñeneen ñoo xam ne nii moom fekk nañ leen ca Leewtoo muy Max Mbargane ak Sidi Diakhaté ñoom itam daal ñu nga xëy daal di wax ñu nga xëy di wax daal ca la nga xam ne nii moom la ñu fi dégg fan yi muy diggante écurie Fass a doon réew mi di Matar Ba moom la mu gis daal ne ñi nga xam ne nii daal ñoo fi nekk wala wala boog li nga xam ne mooy làmbi réew moom daa jàpp képp ku ko bëgg a yàq Matar Ba jàpp ne moom dana da jaar ci kawam ba pare jàll door a mën a yàq làmb waaye nee moom du ko nangu tey suba waxi noppi ñuy yàq làmb ji ministre des daal nee na moom xalaatu ko wala boog bu keroogee da koy lijjanti moom ba féetale ko boor def la nga bëgg def keneen koo xam ne nii moom wala beneen yëglikaay bu ñu naan record buñ fa demee yaxi job jàppewul loolu jàpp na ne moom waroon na am beneen place boo xam a mérito ci biir mbiri na ko ci am a a yokk beneen place boo xam ne nii bu gën a wóor lay doon ci biir bureau bi ngir nag doxalin ba ñu mën cay xam dara Gris Bordeaux moo xëy tey wax loolu leneen loo xam ne ni moom su amee dina am koo xam ne dana ci avantage wu mu yokk nga xam ne mooy yokk atum retraite jëlee ko ci 45 cinq ans yóbbu quarante-huit ans ca làmb ja mel ni ki nag Bombardier yëglikaay bi ne na daal ah su sàgganee est-ce que du lay sax ñaari contrat maanaam ñaari combat mel ni kon daal yokk ga amee moom dina am ñoo xam ne dana doon seen avantage ba tey record ñëw na ci ñoom ñaar ñoo xam ne jàpp na day seen lépp benn la ma waaye daal fa mbir ya mooy fal gi ñu mujj fal Doudou Diagne Diecko Amadou Mbaye ma nekkoon tamit ab candidat te kera maanaam ñu fal dut jaaj mel ni que mbir ya na mu doxee moo ko naqare yoon ba tax mu defar wala boog mu euh, ut loo xam ne daal mooy les amateurs authentiques di ko doxal moo tax record xëy na tey ñëw ci ñoom ñaar waaye la am ba des daal muy Amadou Mbaye ak dut jaaj kum ci mën a doon ak Matar Ba ak Bira may sa Maysa ak ñëpp a ci yem li am solo ba des daal mooy nan fexe ñun sunu làmb ji nun koy sauver ba mu gën a mën a dem ci kanam li koy indi nag mooy ñi fi ne comme teg nañ leen fi pour ñaari at na leen yëpp jàppale teg leen ci aw yoon xelal leen dimbali leen ngir yi mën ngir nag mbir yi mën a réussir yàgg maar ndax olof njaay ko wax yenn këti xëddeen dañuy yëgoo balaa ñu naan jóg leen waaye loo ci mën a dégg daal loolu mooy li nga xam ne man moom laay wax ci làmb ji man na nu jàppante bokk ndey bokk bàyyi ngir mbir yi mën a avancé waaye lépp nag maar ci kaw dëgg rek ndax dëgg itam fu mu amul jàppal ne mbir ya bu doxee itam du sori maanaam tàkk-tàkkal mbob lay doon jërëx lay def waaye xëy rek ne gamis fay noonu la demee mbokk yi ñu ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko saaxu seen comme ni ngeen ko xamee nag tey nu ngi euh, mercredi maanaam àllarba 11 novembre 2020 waa sunu lamb Leewtoo point record ku ci ne tey xëy nga indi ay xibaar bu dee sunu làmb la dañ fay fekk mooy Xaadim Gadiaga président Rock Énergie moom nag jàpp na ni mbërëm mi di Modou Lo moom pare na fi nekk nii ngir jàmmaarloog Ama Baldé maanaam daal ñoom fi nekk nii ko tey yépp pare nañ ci Xaadim ne na Modou moom du koy réli ci lëkkile ci ginnaaw lu mu mën a doon ci kanam lu doon kon defe naa foofu kon léegi mu war mën a neex kon la wax daal mooy ñaan Luc a kii yëpp yi ñoo soxla Ama Baldé ak Modou muy combat royal boo xam ne ñu ngi ñaan liggéey rek mu réussir ko di nuyu staffam bépp nag rawatina doomam bi nga xam ne moom mooy suñu soppe di wéli maa koy bëggee bu baax di nuyu grand raay ba mi nga xam ne moom mooy tamit coordonnateur Luc Nicolaï pro euh, ak ñëpp ñi fa nekk waaye daal xam naa combat la boo xam ne xam naa bu Modou pare daa mel ni Ama itam war naa mën a pare kon daa mel ni fi mu làmb tey yore lit avec frappe ah jàpp na ne bi diis na waaye jàpp na du lu war a mën a jafe waaw loolu effectivement war na mën a demee noonu yen moom mën naa diis waaye doxal ga bu fekkente ne ña ko séqal yaa ngay wax ak ñoom di diisoo ak ñoom mën naam fa nga ko bëgg a yóbbu di nga ko fa yóbbu kon man maa leen di ñaanalaat yàlla dimbali leen ba lii ñu leen jox comme mission te ministre bi wóolu leen ak waa làmb yàlla nañ ko réussir Maysa Ndiaye defe na tey ci lu mel ni ki noonu Aziz Gueye ñëw na moom mooy euh, euh, euh, Issa Ndiaye it wax na ñoom ñëpp nekk ay membre ci biir ku ci ne am loo fa yore ci liñ jàpp ne doxalin bu ñu ko defee dina am defe naa ne li koy doxal rek mooy bokk ndey bokk bàyyi rek jàppalante ku neen di sa mbir ñu bañ a xeeb kenn ubbi porte yi te defe naa moom la leen presse bi wax ñu ciy gis ku mel ni Lamine Seck Lit TV wax na ubbi buntu yi maanaam communication bi di jàll parce que communication buy jàll rek maanaam lu bëree bëri dana faju te nit ki des fois dina wax loo xam ne wala mu dina ci erreur boo xam ne la ko ciy dugal mooy ñàkk am communication bu baax wala ñu ko wax la xew loolu nag su dee am mën na yàq mbir yi kon wax boobu Lamine wax defe naa bu jara bàyyi xel la ñu gën ubbi porte yi communication bi jàll bu ko defee liggéey bi mën a am sens li ci baaxul ñu génne ko teg li baax ñu doxal ko ngir mbir yi mën a avancer ki nga xam ne moom mooy Bira nag mu mel ni kon du gan ci mbir yi ndax CDC ba ci CRC ah mu mel ni ay at yu yu bëree bëri la yoo xam ne jiite na ko ndax foo jiite fukki at ak juróom-benn 2004 ba 2020 nga yore ko CRC bu Kaolack defe naa ne kon am na lu mu xam ci mbirum doxalin te lu jiitu la am na lu mu jiite woon kon defe naa ñu koy ñaanal rek mu réussir mission bi waaw ah, donte nag du yomb waaye nag ñu ngi koy ñaanal mu réussir ko parce que loolu moo fi des fi mu nekk nii waaw ba tey bu ñu demee ci leewtoo point net a ah, gisoon nañ fa ay xibaar que ni dañoo mel ni lu def jàmmarloog ñi fi ne parce que ñàkk ànd ci tabuk bira mel ni ki nag loolu bi mu génnee dem tafaa gi xaarul muy sedd démentir na ko jàpp na ne loolu amul tey suba waxi noppi parce moom daa jàpp ne dañoo yor booba xibaar ci xali màkk nga xam ne moom moo di euh, Max bu Lansar ñoom itam ànd bu faas ak écrit Ndakaaru doon benn dafa mel ni ñoom loola gis na gis booba bañ waxee wax ba daa mel ni ñoom lañ ca gis daal mooy lu war mën a nekk la te lu yokk làmb la ah waaw mbooloo de mooy doole te xam naa mbooloo moom bu ñu booloo ah te yàlla rek tax mën ngeen def la ngeen bëgg a def waaye tasaaroo moom amul lu muy indi ci njariñ boo bëggee dégg dëgg rek kon mbooloo mu mën a doon nag nañuy ànd rek te yàlla tax comme li may wax rek ndax ànd lu mu rëy rëy rëy te ànduñu te yàlla taxit résultat bi du positif kooku moom bul sonal sa bopp yéegu bëy lay doon doo sori loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax Matar ba ministre des sports moom jàpp na ne lamp ku bëgg a yàq ah jaar ci koom noote ko ba pare door koo yàq waaw mu mel ni ko moom kon defe naa itam tey boo nekkee ministre de la république wax dëgg yàlla bëggee ko noonu ah dañ day maanaam xel mu dal lay doon ci ñun acteurs yi ci nekk di yëngutu rek kon defe naa naa noonu la war a mën a demee bu ñu fa jógee dem record record nag dañ fay fekki mooy Gris Bordeaux boo xam ne xëy na li ñu def muy bureau bu bees bi ñu tab ànd na ci waaye la ko ca neexul mooy yoxe job yi gi ne ak place bañ ko ca jox jàpp na ne du méritoowul loolu te itam ñoom mbër yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci lam ji di bëri les leaders en activité méritoowuñ loolu kon yaakaar naa loolu itam ah am na xëy na yax ya mënoon benn place waaye nag malheureusement am ko teg Yékini moom defe naa ci lamb marqué na empreinte am te defe naa mbër yooyu nga xam ne dañu marqué seen empreinte ci lamb ay Yékini ay Tapha Gueye ay Tyson ay Lac de ay Boy Kayré mbër yu mag yooyu ak ñeneen ñi leen jiitu ah war nañu ñoom itam dañu am xalaat ci lamb parce que nag dañu révolutionné lamb rawate na ku mel ni Mohamed Ndao Tyson loolu jar nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax ci liy doxal lamb yaakaar naa loolu lu a bàyyi xel la atu retraite bi yokkee ah Bombardier ndax signé wul ñaari contrat ak Gaston Production c'est possible bu ñu ko yokkee 48 ans ah mën na signé yeneen contrat parce que lépp mën a ne waaw l'essentiel que na lamb moom li ma wax rek di nga dem ba lamb bàyyi la nga bàyyi lamb ñaar yooyu mën am yaa ngi dégg maanaam dem ba la say at mën ngaa sa bañ ay 45 ans te mu na la waaw loolu day am mën ngaa demit ba mu wóor na yow am nga 45 ans wala sax mataloo ko mais yow yaa xëy bàyyi làmb gis nañ ko fi ñoo xam ne seen carrière ñoo anticiper bàyyi ko parce que jàpp nañ ne war nañ ko bàyyi bàyyi nañ ko waaye loo ci mën a dégg daal ku ci dugg ak jàmm ya nga ci génn ak jàmm rek loolu lañ lay ñaanal waaw loolu mooy li nga xam ne ni moom moo ci ne jubale di wala boog du jàncee ko ak ki nga xam ne ni moom mooy mm, Amadou Mbaye mu mel ni ñoom ñaar yëglekaay bi record topp na seenub diggante la seenub ànd ni mu rafete woon ak li indi ñal ñol ñol ci seen diggante di wax ne rek àddina noonu bu ñëk Lamine ñoo dëkk mais des fois ñu laalante laalante bu metti kon diggante yëpp yàlla na mujjee ci jàmm rek des fois ay nit ki nga nekkal rek ki nga xamul gisoo ko déggoo ko ngeen romante ci mbedd mën ngeen a bañ a jote mais ki nga séqal mbir des fois moom ngay ñàkk bokkal gis-gis muy indi werante ak ay kii mais ñu ngi ñaan yàlla diggante yëpp yàlla def ci jàmm di nuyu ñëpp yàggament di ñaanal ñëpp jàmm di wax Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm encore une fois di waxaat suñu senee su réew nekk gaal gii wala géej gii man de gisuma ne mooy solution bi wax dëgg yàlla gisuma ko de dëgg neex yàlla parce que nag yaakaar naa ne ak lu mën a xew nañu jéem a fii ñàkkante ko parce que tamit xam nga am na loo xam ne daal pour man du ko jar te wax dëgg yàlla faatu say mbokk gisuñu la yaa ngi dégg ñaana ñu la nga xam nga yooyu dafa xaw a war waar dafa metti li ko waral nag mooy pexe mu jeex ndax nag ku bëgg a dee wequ ah te li état bi da ci am part état bi ngir yàlla ko bi politique jeunesse bi ngeen teg gën leen jàppale jeunes yi jàppale gi nag du doo xeeb jaaykatu caax bi ci mbedd mi jàppale ko ndax caafam loolu mën di jar mécanicien ba tôlerie ba soudeur ba nappkat ba kum ci mën a doon dawalkatu saret ba nga fekk ko ca la mu ne nga jàpp ko jàppale ko menuisier yi bois baak ñëpp ñu fexe li ñuy liggéey ci réew mi ñu fexe état bi di valoriser ko ñu mën ko di jënd di ko kii mais ba bu fekkee lépp nag dañ koy jëggaani dinañ dem ba ñi ne fii di liggéey la ñuy liggéey dootul am njëriñ su ko defee mooy waral nit ñi di mbëkk di dugg ci géej gi kon président Macky Sall yow la ñuy waxaat daanu dajul suuf waaye ngir yàlla ko bi gën leen a jàpp gën leen a jàppale réew mi te xam ne dañ leen a dénk réew mi ngir lan ngir ngeen yokk yaakaar ci réew mi yàlla nañu yàlla defal jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàppe xol comme ni ko maam da doon waxe yàgg di la ñaanal jàmm di ko ñaanal waa Leewtoo production yëpp